salaam gars ñu ngi leen nuyu di leen bëgg yéen ñu ngi xam ne yéen suivre chaîne bi di Sene Informatique ñu fi waxtaanee lépp lu jëm ci internet informatique ak technologie suñu vidéo tey bi dañu continuer suñu montage vidéo ci euh, logiciel bi di Adobe Premiere Pro euh, comme ni ñu ko waxee woon ci vidéo bi di passé tey dañuy expliquer projet onglet projet bii ni en détail bii passé defoon nañ importation gis nga ne ci lañ importé woon suñu vidéo yii nii kon dañ ci jàngee ne kon fii ci onglet euh, projet liñ fi gën a soxla nga xamante ni moom moo moo moo gën a fës mooy suñuy vidéo yi ñuy importer pour mën a def suñu montage fii lay nekk léegi nag vidéo yi nii bari na ay réglage ñu ci mën a def d'abord bala ñuy def réglage yi boo xoolee ni vidéo bi gis nga ne su ma tegee souris bi day mel ni luy daw waaw lii nii animation la maanaam su tegee vidéo bi ci cat bi maa ngi ci commencement vidéo bi su ma buuxee su may dem day dem ndànk-ndànk da ngay gis nekkoon kon mën na maa seetaan bi fii de la même bii nii tamit su ma defee noonu lay def bii nii su ma defee noonu lay def bii ak bii imageur moo tax su ma taxawee gisoo day day fixe parce que imageur day fixe waaw léegi euh, kon loolu mooy première kii bi beneen bi mooy bu ñëwee fii ci kaw gis nañ fi benn barre de recherche fii nii dangay ngay recherche li nga bëgg comme tey bu fii bàyyi woon ay bagage doo am jotuk euh, xool yëpp yëpp li nga soxla doo nekk di jeex ci biir mais mën nga recherche fii direct boo xoolee fii ci wet gi ñu ngi la bindal cinq éléments ça veut dire que fii nii ci onglet bii nii éléments yi fi nekk yëpp nombre bi au total cinq la boo wàññee da ngay gis ni un deux trois quatre cinq kon lii nii mooy éléments yi bu fekkoon leneen dafay nekk tamit muy ay audio ay image comme yi fi nekk nii ak ay vidéo waaw daf koy boole mu calculer ko moom moo lay jox nombre bi fii nii fi ne nii cinq éléments kese la ñu am beneen euh, affaire bi ñu mën a euh, soxlawaat fii ni mooy disposition kii yi éléments boo wàccee fii ci suuf lii mel ne bouton bu yokk ak wàññi tey ñaar boo tegee souris bi gis nga ñu bind la ci suuf mode liste ça veut dire que boo ko bësee léegi sa vidéo yeeg sa photo yeeg sa son yi dootu feeñ comme ni muy feeñee nii ngay gis image bi nii mais def koy def comme genre liste day bind benn ci kaw tur bi euh, ak fiñ ñu ko enregistré peut-être Euh, ñaata minute la durée ak euh, yeneen information waaw mën nañ ko bës ni ñu xool soo bësee gis nga nii la koy def mi ngi la bindee fii logiciel de montage vidéo fii mu bindee la Woman 58 142 fii mu bindee lii mooy turu turu euh, vidéo bi wala son bi wala photo bi soo xoolee fii ci wet gi ñu ngi la bindee fii fréquence d'image yii nii boo xoolee ci suuf da ngay gis trente images par seconde vingt cinq images par seconde vingt cinq images par bu dee fii nii début du média mooy fan la vidéo bi commencé wala son bi fii zéro la def c'est normal parce que vidéo wala son wala mën di doon zéro ngay commencé fii nii mu defal la fin du fin de média waaw fii la son bi jeexee wala vidéo bi boo xoolee ci cat bi mu nga fii vingt et seconde dix huit tiers fii tamit mu defal la douze secondes vingt trois fii mu defal la douze secondes vingt trois tiers parce que vidéo bi dama ko répété ñaar yoon moo tax waaye bii ci suuf boo xoolee fii gisoo dara parce que ab image la image comme benn image la mënoo fi am mënoo am fii nii vingt cinq images par jour par seconde maanaam fréquence de l'image loolu pour vidéo kese nga ko mën am début du média mënoo ko am fin du média mënoo ko am waaw bu image moom nii lay mel juste tout image bi rek la lay kon lii mooy mode liste buñ ko delloo fi mu nekkoon mooy mode euh, icône waaw mode icône moom moo nekk fii nga xam ne dafa koy wan par image dafay bindal fii en même temps ci suuf tur bi fii dafa koy bindal mais dalay wanaare photo yi image yi ngay gis waaw léegi bu fekkee dañoo bës bii ci wet gi muy affichage forme libre moom tamit xeetu affichage en mode icône la waaw genre boobu la parce que ba te image yi ngay gis mais avantage bi wala boog différence am ak euh, mode icône mooy da ngay mën a déplacer image yi par exemple nañ ko bës xam ñoo nekk nii mode icône la ba tey léegi nag su ma ñëwee ci bii nii su ma ko bësee téye gisoo mën naa ko xëcc ci teg ko fii bii mën naa ko xëcc ci teg ko fii bii mën naa ko xëcc teg ko fii waaw bii mën naa koo teg fii bii fii lii ne mooy différence ak mode icône da nga koy mën a euh, déplacer mais bu dee mode icône moom day fixé wu comme nii ku ci nekk nag yaa choisir ni nga ko bëggee mais ñun on travaille avec le mode icône bii nii li mel ni awa di nii di mel ne yokk wàññi loolu lay jariñ sax nag yokk ak wàññi mooy image bi nii ni muy feeñee nii nga yokk taay bi wala nga wàññi ko waaw gisoo su ma yokkee gisoo day yokk day yokk gisoo ba nii fi ne daanaka lii vidéo bi yëpp la ma wan mën na maa seetaan vidéo bi fii daanaka su ma ñëwee ba ci cat yi nii gisoo su ma avancé day dem waaw parfois euh, boo bëggee plus de détails ci vidéo bi mën nga ko yokk mais boo amee vidéo yu bari nga bëgg yëpp fës mën nga ko wàññi loolu lay fii nii mooy trier les kon par exemple su ma bëggoon a trier icônes yi nii xam fii icônes yëpp a ngi feeñ nii dañoo tegaloo nii nii rek par par par euh, hasard léegi nag bëggoon ñu toppalante par exemple A B C D waaw yi nga xamante ni ñoom ñoo commencé A. ñoo njëkk ci kaw yu commencé B ñoo ciy topp yu commencé C ñoo ciy topp loolu mooy trier waaw fii bari na ay façon yoo mën a utiliser pour trier yëpp peut-être di nga mën a essayer nga xool mais pour l'instant je ne pense pas que ni di nga ko soxla waaw donc euh, mën nañ bàyyi noonu mais loolu lay jariñ boo ñëwee fii ba tey bouton recherche mu ngi waat fii nii boo xoolee ci wet gi mën nga utiliser contrôle F pour génne ko waaw mais comme mu ngi nii mën nga ko bës soo bësee mu génn gisoo mu génne la bi bind li nga bëgg comme ni nga ko defee woon fii mais da ngay ñëw fii nga recherche par libéré wala couleur wala genre yooyu noonu wax loolu lay jariñ fii parce que boo xoolee fii nañ ko defaat mode euh, liste soo ñëwee mode liste gis nga fii am na couleur bu nekk fii couleur bi ak bii ak bii ak bii bokkuñu waaw mën na maa euh, recherche par couleur su ma ñëwee recherche gis nga couleur yi fii violet mën na maa choisir façon couleur yi fi nekk et cetera waaw fii loolu la jariñ boo demoon ba utiliser vidéo yu bare bare bari su la neexee chaque vidéo nga wutal ko ab couleur vidéo yi nga xam ne ñoo bokk ñu bokk couleur mën nañoo bokk libéré mën nañoo bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moom nga leen xàmmee léegi soo bëggee génne vidéo yooyu kase kase boo ñëwee ci recherche couleur boobu ngay seet wala libéré bi wala genre yooyu noonu waaw en gros jariñ léegi ñu defaat ko mode icône bi ci topp nii ci recherche bi mooy Euh, nouveau chutier fii li mel ni ab dossier ni loolu lay jëriñ sax créer dossier waaw léegi boo bësee gisee day génnee yi wax la nga bind ni mu tudd par défaut chutier lay tudd mais yow mën nga tàppee loola neex mën nga ko tuddee ni nga ko bëgg a tuddee dossier bi suma ko tuddee nii léegi mën naa cee dugal ay fichier par exemple comme vidéo bi mën naa kaa dugal ci biir dossier bi su ma xëccee bàyyi bu dee foto bi mën naa kaa dugal moom tamit ci dossier bi damay bës xëcc ba ci dossier bi ma bàyyi gisoo bi yooyu jariñ léegi bi topp ci moom nii euh, nouveau élément fii dossier woon fii nag élément la waaw boo bësee di nga gis yan élément nga mën a créer gis nga fii séquence séquence euh, danañ ci ñëw incha allah yaa naa ci vidéo bi di ñëw wala bi ci topp euh, wax mooy lan ak naka lañ koy créer naka lañ koy paramétrer tamit lii ci des tamit yëpp ay éléments yoo xam mën nga ko créer lu mel ne vidéo noir lu mel ne calque d'effet dañ koy soxla lu bari sax euh, lu mel ne fii nii euh, cache couleur ay légende yi yëpp ay éléments yoo xam ne buñ bësee fii mën nañ ko fee créer directement mais en même temps éléments yi nii mën nañ koo créer fii soo ñëwee ci kaw ba tey fichier nouveau nga ñëw fii gis nga projet nouveau projet lay doon <coughs> séquence nouveau séquence a ngi nii chutier comme dossier bi ñu créé woon sànq tamit mën nañ ko créé fii boo wàccee fii euh, calque d'effet bi ma woon sànq mu ngi nii mën nañ ko créé fii vidéo noire légende cache couleur yi yëpp éléments yi nekkoon fii yëpp léegi mën nañ kaa créé fichier euh, fichier tamit nouveau bu ñu neexee waaw léegi fii ci wet gi nii mel na lu ñuul mooy euh, le fameux poubelle waaw mooy jariñ supprimer effacer léegi dafa lëndëm ni parce que sélectionné wuñ benn photo wala benn vidéo mais su ma ñëwoon ci dossier bi ma sélectionné ko su ma ko bëggee supprimer gisoo feeñ na damay ñëw ba ci fii nii yi mel ne poubelle rek nga bës ko koy supprimer de la même manière su ma supprimer photo bi damay ñëw ma bës ko mam sélectionné ko ma ñëw bës poubelle bi mu supprimer ko su ma bëggoon supprimer yëpp damay sélectionné yëpp ma ñëw bës poubelle bi mu supprimer ko kon yii ñooy yi nga xamante ni ñooy éléments yi nekk ci le panneau projet waaw bu ci nekk wax nañ lan lay jariñ léegi ñu bàyyi xel que ni euh, panneau bii nii mën na bañ a mel nii parce que waxoon nañ ko ci vidéo commencement bi le que ñuy utiliser fii nii ci kaw disposition montage montage bii nii moo tax mu mel nii mais su ma ñëwoon ma bës assemblage gis na nii lay mel léegi affaire bi fii la nekk gisoo ko nii su ma demoon ma jëli ab vidéo gis nga nii lay mel kon melatu na meloon waaye vidéo yëpp fii lay nekk li may jël yëpp fii lay nekk exemple ñëw ma jëlaat encore gisoo ko fii lay tegaloo léegi su ma defee fii nii mode gis nga nii lay def affaire bi fii fii fii yëpp fii la ñuy tegaloo su fekkoon vidéo yu bari yëpp ay nekk fii su ma defaatee mode bi kon mu ñëw mën na maa yokk bu ma neexee gisoo ba mu sës sësee nii lay mel kon mën na bañ a mel ni meewoon sànq waaw ah, mi ngi dépendre ci disposition biñ choisir ak interface bi léegi ñun dañuy dellu siwaat ci montage comme niñ ko waxee ci vidéo bu njëkk ba ñu bàyyi ko ci waaw ñun montage lañu liggéeyee kon gars yi lii mooy vidéo bi tey bi euh, objectif bi moo doonoon wane naka euh, wane euh, anglais projet bii nii lu muy jariñ ak yi fi nekk nii yëpp bu ci nekk lan lay jariñ waaw boo xoolee ci wet gi nii même fenêtre bi am na yenn onglets yu fi nekk boo xoolee fii yaa ngi ñu bind explorateur média bibliothèque info effet mais yii nii yi nga xamante ne soxla nañ ko ci yëpp dinañ ci ñëwaat encore en benn par benn comme lu ci mel ne effet waaw dinañ ci ñëwaat incha allah ci beneen vidéo mais objectif moo doonoon projet onglet projet bi ñu expliqué ko kon euh, fii la ñuy yemale vidéo bi euh, di leen dikk ak daje ba beneen yoon incha allah di wax ne bu fekkee abonné goo ngeen abonné ci chaîne bi ngir mën di jot suñu vidéo saa yu ñu dugalee bu bees mën koo seetaan mën cee jariñu ñu bokk ñu ñëpp jariñu incha allah bon vidéo bi ñëw ñu ngi euh, wax ci euh, le panneau source mooy onglet bii nii lan lay jariñ euh, kañ lañ koy utiliser ak bouton yi fi nekk nii yëpp bu ci nekk lu may jariñ moom la ñuy wax incha allah ci vidéo bi di ñëw jaa ngeen jëf ba beneen yoon.